laajte ndax man maa la invité. waaw parce que da ngaa xam yow su mën koo tontu tontu ko mënoo ko bëgg a tontu ma neexee laa lay mais du la may man man lay neex. que yow da ngaa xam da ngay ba ma daane ma wax yow. yow yaay déglu yow da ngay déglu ba ma ma wax ak yow ba pare. merci. waxal. aywa suma gars yi nga yow tam. ma la. waxal. li may wax mooy. waaw. dama bëgg nga calme. aywa. nga xam ne waxtaan lañu sekk laaj ak tontu. waaw. gërëyee nga. waaw. yow doo daw laajte. déedéet. te da ngay tontu te da nga am fit. waaw. mais tey nag. gisagoo loolu am nga nan nga ñëwee. waaw. moddu seex bi dafay jaay mën a communiquer. dafay piéger nit duma piéger. yow yaa ne nii yaa ne nangam. en fait bu neexal interview. waaw man tey su fekkee ne yow bëgg nga. waaw soo fi jógee mën nga ma invité comme damaa xewi nga may ma visibilité sax. parce que man 14000 personnes. aw ma temps boobu mais continuer rek. yow yow yaa fi ñëw ma am 14000 bi duma koy am man xewu ma. mais soo ma mënee may. Hmm. ngay tontu laajte dafay baax mais yow boo dawut laajte bi yaa ngi koy defante boo defantewut yaa ngi teesante. ci interview non parce que da nga ma sosal da nga fi wax ne nit day jaaral yow ci suuf bu dee da ngay laaj da ngay laaj mais bul sosal nit ki looloo tax ma tontu la mer. déggoo wax bi de. non mais soo meree dafay dafay wane faiblesse bul mer. Ah ah, ah ah nit kenn du ko sosal ci quatorze mille personnes. dama ne la dama la wax ne la li ngay wax boo ci amee preuve teg ko nit ñi seetaan parce que quatorze mille ñooy seetaan. loolu laa leeral ma laajte ma leeral. waaw ah, kay man ma fu ma la ne dafay daw de dawu ma laaj de da nga ma sosal ma tontu mer. man bëgguma xam naa ne mer nga fi ñetti yoon mais mer bi jaru par parce que. yow la nekk nga accepter interview bi. parce que da nga fit borom fit nga quoi comprendre continué. léegi. waaw. su la nit woowee jaar ak yow fu baax. après da ngay dem ñaan ko ci ko ci bàyyi. léegi jaar ak yow fu baax mooy nit ki dalay woo comme si que dalay jox xaalis. pour nga jaar ak yow fu baax loolu amul. man tudduma loolu yow yaa ko wax. Adamo tudduma xaalis bul mer. waaw may ñun ay Sénégal lan di. yow nooy nekkee Gambie gën ñoo dégg wolof. non xaaral. xaaral nan ngay nekkee Gambie ñun gën ñoo jëlee ay wax wolof yi nga xam ne moom la nàmp ñun ci suñu yaay ak suñu papa. yow nga doon Gambie jóge ci àll ba gëj di ko dégg ñun. mais bul wax loolu Gambien yi dañ lay seetaan dañuy mer. lii du mbiri Gambien yow laay waxal mën nga wax ak man interview la ñu seet. waa mais boo ci dugalee Gambien di bedd Gambien yi te Gambien yi bëgg la mën neen la mere. Gambien yi samay xarit na. waaw da nga juum jégalul Gambien yi bu leen tudd. waa ah, waaw Gambien maa ngi jégalu demal. waaw amul problème lii du mbiri Gambie ak Sénégal mbiru Cheikh Ahmed la ak xaritam. waaw Bos de Nigri. waaw léegi. jaar ak yow fu baax waxuma xaalis. su ma bëggoon wax xaalis damay wax xaalis. waaw léegi la rek lan mooy jaar ak yow baax. mbaax xam nga ko comme yaa gën a dégg wolof jarul baax mooy lan. xamoo. waaw yow nee nga waxoo xaalis kay luy baax. wallaahi waxuma xaalis. waa kon jaar ak yow fu baax mooy lan. mbaax kay xam nga ko nag yaa ma gën a dégg wolof. xam déedéet nga du ma delloo te toj ko Sénégalais yi seetaan ñu mën a xam loolu. ok bu la bu buñ dugalee taatu nit. waaw. ci kocc. waaw. nit yow lay xalaat. waaw day yaakaar ne sax maa ko dugal. ñoom dan may wonaan ma. yow yaa ko dugal ma ne li man aw ma sit gisuma sit te situ kocc ban koy xam boobu aadama existé wul ñu bëri ci Sénégalais yaa ngi seetaan xam na ne ba ñu xam kocc aadama existé wul. am na benn jigéen. waaw. bu ñu publier taatam. waaw. mu yónnee la vocal yow. man waaw. di la jéggalu di la expliquer. waaw. vocal boobu la Kocc publier. waaw. waa léegi ana yow. waaw ana Kocc. ba mu jox vocal bu la jigéen yónnee yow bañ publier ko Kocc. Kocc mi ngi mi Kocc mi bu ma ko boo bëggee bind da ngay dem ci site bi. Adama sa body language. waaw ko de ma ne la Kocc. boo duggee ci site boobu di nga fa fekk numéro nga daal di koy bind WhatsApp comme ni may waxee soo ma envoyé sa vocal dama koy jël ma transféré ko ko barke Serigne baaba karsi ak ma suul sama ndey sénégalais yi naan Adamo moom mooy Kocc danoo dof parce que dof bu mel ne Adamo bu nekkoon Kocc jàpp nañ ko yàgg na man awma intelligence mënumaa bind bind yu baax mënumaa dugal vidéo montage su vidéo yi sax dañ ma koy defar pour mu leer dégg man laa la wax ni ma ko xamee ci numérom laa koy gis numérom laa koy gis ci whatsapp bi noonu bind ko comme ni ko nit ñi xamee point. Adama. waaw. yow doo coach. loolu koy ñëpp ko xam. non ñëpp xamuñ mais ma laaj ci suma question s'il te plaît. waaw waaw. ji nga war a indi ñu ràcc toog waxtaan yaa ma gën a xam jëlal ji. non demal non demal bi dem garaaw. jëlal ji nga waxtaan. demal maa ngi lay déglu. yow nga ne doo kocc. waaw. man ma gëm ne yow yaay kocc mën naa juum nag ndax nit rek la. yow nga gëm ne man maay kocc. waaw waaye mën naa juum nit la. <laughs> Cheikh Ahmed maa non eggaguñ ci maa tey mais ma ma laajte su ma laajte. maa man la ko. waaw même ma laajte rek. dan lekk ma dan may doon. non bu don't give me ne yow yaay kii ah. don't do that. ma laajte sama question s'il te plaît. waaw. d'accord <laughs> maa ngi dégg. xool leen kanam Adama geeg bëtam su ngeen paree ngeen commentaire lu ngeen ci gis bu ko nëbbu Adama bàyyil noonu. Ah. léegi ah. man dama gëm ne yow yaay Kocc. waaw maa dafay am vis non eggaguñ ci maa tey Adama ma laaj. waaw aja maa lay dégg dama gëm ne yow yaay coach parce que nit daf lay yónnee vocal mm-hmm. ak vidéo yow yaa koy yónnee vidéo non non non même ma dama dama yónnee vidéo coach may ma ma laajte dama yónnee vidéo coach kooku ma laajte waaw merci mm-hmm. yow da ngay yónnee nit vidéo am maanaam nga am nga yónnee ko coach de uh-huh. nga yónnee ko nit uh-huh. woo ko pour mu ñëw waaw kooku da lay yónnee vocal di la ñaan ak a négocier ak yow. waa bu Kocc di publier. Ah. même vidéo lay publier même audio yi la ndaw si yónnee woon la Kocc di yón. di ah, ah. di publier. au au maa ko gis. dama ne la contraire ba loolu benn yoon nga ko gis du ñaari yoon. waaw benn yoon laa ko gis. waa kay kon jeex na. benn yoon boobu waaw maa waaw même boo boo dee fen ba ma jàpp la da toog benn yoon la. déglu ma rek ma ma ñëw. femme bi bind ma di ma ñaax mais ma ma laaj ci ma laaj da nga may la mais ma ba ma laaj la nga tontu non wax benn affaire man du ma bàyyi nga may sosal di toog mais ma ba ma la laaj nga tontu laajaguma la ma laaj non non noppi ñu la argument ci loolu nga dem non non non mais laajaguma la ba may ma laaj demal ok Adama bi ma la invité ba tey waaw suma la wax fen parce que ah. suma gan nga dama la respecté waaw mais man maa lay wax. waaw fetkat nga tax dama xam ne wax. waaw may ma rek te man bëgguma loolu. sooy wax loolu. waaw ah. dafay wane faiblesse day wane na yow jekku naa la. te bëgguma loolu parce que suma gars yi man mënuma man calme-toi kon calme-toi kon dalal. dalal yaa ngi énervé. maa ngi déglu. waaw boo énervé rek xam nga sa bëti mu ngi commencé di lew lewi ça ça montre quelque chose quand même. man dara mënut a mot man doomu séeréer laa noonu laa mel. waaw mais man fu ma toog damay lawlaw man fu ma toog damay gëm yàlla. d'accord fu ma toog damay nekk en l'aise man du ma tëdd mukk nit nekk en l'aise. mais mais énervé bi bi ma ñëwee ci kocc ba tey da énervé. da nga dal dama énervé ndax dañ ciy boole ay sos. demande déglu ma rek non may ma ma ñëw demande. Adama da ngay waaw da ngay non may may ma daanu xam nga damay. foog nga ma suma question ñëw ma may ma laaj non ma may ma laaj suma question nga door a ñëw Sénégalais yi lan tax may énervé. non mais suma question suma question ñëwagul. ngay fet di ko ci boole moo tax may énervé waxal lañ laaj normal. mais nga bañ a kay acca loolu may énervé lool. foog nga may ma. foog nga may ma ma laaj la. acca nga tontu calme mais. su énervé na bañ a ànd fen rek mais soo énervé dafay wane dafay wane faiblesse. léegi yow. Ah. waxuma ñaari yoon. waaw waxuma ñetti yoon. awma nombre. waaw dama ne man gis naa yow Adamo. waaw nga yónnee jigéen vidéo taatu neenam. waaw jigéen ji di la baalu. waaw yónnee la audio di la leeral. waaw kocc vidéo boobu yow Adamo nga yónnee jigéen. waaw audio bi la ndaw si yónnee ba tudd la Adamo. waaw moom la Kocc publier. waaw léegi da nga cee bëggoon idée leer mën naa question la lu tax Kocc jot sa jot audio. bi la ndaw si yónnee ba publier lu tax. waaw kay yaa ngi doog a ñëw. waa lii xam nga problème mooy da nga rek. boo kay léegi may ma. ndaw si dama ko yónnee vidéo bi ne ko vidéo bi yow la parce que danu ma ko yónnee. moom mu ne ma Kocc de ko publier yaa ngi dégg di ma <coughs> di ma ñaan man pour ma wax ak Kocc pour mu dindi ko ci laa jëlee vocalam transféré ko Kocc directement pour mu xam ne kooku moo ko yónnee vocal bi léegi nag moom moo jël vocal bi publier ko kooku moom la intéressé ndaw si dama doon ñaan mënuma ci dara ndax yoruma sit man tamit ma jël ma jël vocal bi daal ko koy transféré loolu nga bëggoon a xam yow foo jëlee vidéo ndaw si. ay nit a bëgg a yónnee Sénégalais yi. soxla woo pour naan wala. non non soxlawu ma dara. man lépp lu ma am Sénégal la jóge soxlawu ma dara. léegi vidéo ndaw si Sénégal la jógee. Sénégal la jógee man lépp yow yaa yónnee audio euh- ko ko ndax moom man la doon ma transféré ko ko ndax man aw ma sit kocc moom moom sitam mooy dugal ma transféré ko ko pour mu déglu ndaw si wax jëm koo baal moom mu jël vocal ba. publier ko nii la kaa bi ok. waaw kon su ma la déggee daal xamoo ko ci. xaw ma ko barki Serigne Babacar Sy message laay wax ak moom. billaahi wallaahi wa taalaay. mais yenn saa yi ko jox na ko publier mu publier. mukk moom au contraire. moom moo ma ëpp ay vidéo foofu. li mu xam Sénégal xamoo ko. maanaam moom moo lay jox yow. dama ne la moom li mu yor ci ay non non bu lay maanaam nit ñi bu dee yónnee ay vidéo da di jël vidéo bi. Adama soo dégluwul nag doo mën a tontu. man maay laajte s'il te plaît da ngay dal nga déglu ma. waaw dama ne. waaw tontu moo lay jox yenn vidéo yi kon yow yenn saay parce que moo pour source. moo lay jox moo ma ko ëpp de moo ma ëpp source moo lay jox vidéo. moom déedéet joxuma vidéo de. non danga non moom déedéet lan nga bëgg a wax. ok boo ma dégluwul doo xam li may wax. sa yi nga xool nice waaw. maa ngi xool nice man mënoo tiital. noonu non damay laajte rek eh, ah, ah, dama lay wax yow xamoo Adamo de man doomu séeréer laa amul lu ma saf ci àdduna bi man nit mënul ci man dara kenn mënu man du ma Kaliphone bi ngay piécé ak di ko jéem a man lu dul raay du ma la ko wax kenn du ma fenal man dama yow xamoo ma de Cheikh bi man bokkuma bokkuma Kaliphone Sall de ma nga ñëw ci laajte bi bàyyil Kaliphone parce que nekkul fi tey yow yaa fi waxal sa wax ok tontu laajte bi ok euh, Euh, fan fan nga laajoon ñëwaat fa parce que bu wax bi bu jaxasoo damay jaxasoo ñëwal ci laaj bi. non bàyyi naa la loolu Adama may naa la loolu. bàyyi bàyyi li laaj bi. non c'est bon c'est léegi léegi pro pro programme wax bi wax allo. wuyu ko. allo. allo. soxna si waaw lan la. waaw baax na dérangement bi da nga ko def libre. nga ne lan. dérangement bi da nga def libre. déedéet xaaral ma dindi ko waaw maa lay dégg. aja léegi ñu génn ci mbiri Kocc parce que nekkoo à l'aise mënatoo xam sax question yi te yow suma gaañ nga xam non non déggoo li ma la question yi xam naa ko li may posé xam naa ko mais dama ne mais da ngaa wax ba pare dama lan mooy question bi ah, nga parce que wax ji bu jaxasoowee duma xam foo daanele léegi mën naa waxaat question bi mën naa laajaat question bi waaw mën nga laajaat question bi ok yow yaay jox Kocc vidéo wala Kocc moo lay jox vidéo wala da ngeen di joxante vidéo joxuma vidéo Kocc Kocc joxuma vidéo man si vidéo yi may jot ci ay whatsapp laa koy jotee ci sénégalais yi laa ko doon jotee sénégalais yi ma ko yónnee ñoom ñoo ko yónnee Kocc. mais yow yaay jël audio yi di ko yónnee Kocc loolu wax nga ko sànq. nee naa nee naa la benn yoon laa ma sa transféré sa sa benn vocalu maire boo xam ne dafa ma doon ña benn gel boo xam ne dafa doon ñaan ma ko ah, nga ne benn yoon nga mu sa transféré vocalu maire ak benn gel. ñaar benn gel non benn gel. ak benn maire benn gel def ndànk man boo ak ñi ngay pamti pamtee parce que man. doomu séeréer laa mënoo ma perpétuité man lépp loo xalaat ci man bu ma doon kocc dama naan la data ndayam maay cocc lëfal ndayam man la may dugal vidéo yi maay kat seen nday loo ma mënal waxal dara ñoom lu ma mënal dara dangay ngay rek ma ma rek leen la su ma doon kocc man dama naan la maay kocc maay dugal data sénégalais yi man maa koy publier man maay publier seen lëfal nday ci sit bi kenn mënulu ma dara. lu may waay def dara. kon da ngay jéy mën nga wax rek. da ngay jéy non dinaa la may dinaa la may mën nga wax te doo saaga kon da ngay téye non yow laay wax da ma expliqué la. non dinaa may nga wax mais dama ne. comme dinaa la may nga wax xuloo wuñ mën nga wax. wax sa doo saaga ndeyi sénégalais yi. loolu ma da dama ne la. man maay dugal ndeyam. laa la wax te kenn du ci mën dara. su ma doon kocc laax noonu laa la koy waxee. man aadama lépp loo xamante si ni def naa ko rek am naa fit bi man du ma ragal ragal mooy patiner ak di tiit mais man boo gisee may tontu di énervé di mer parce que yow da nga may jéem a sosal ak di ma jéem a dugal man ma xam loolu loolu lay énervé di mer mais du li nga naan ma yow yaay kocc wala yow yaay dugal ndax sénégalais xam na ne man duma ma kocc mënumaa bind aw may information mënumaa monter vidéo xaw ma ci dara ñoom xam nañ ko xaw ma sax du ñu ubbee site sama sama TikTok bi bu bloqué woon sax nit dama koy defaral comprendre nga kon foofu moom amul lu ma fay kii amul lu ma fay tiit ak lu ma fay wax mais yow boo bëggee say question leer danga may déglu ma wax la benn yoon la ma benn gel ma sa bind di ma ñaan man ma ne ko awma site dugaluma nit jël vocalam transféré ko koc Kocc moo dugal vocal baak vidéo bi nii la demee bu dee li bëgg a xam. ok. waaw lan moo tax dix neuf millions sénégalais. waaw. Kocc di publier. waaw. mësul publier benn audio bu ñu yónnee kenn budul sa bos yow. loolu loolu loolu xaw ma moom nga koy laaj. danga nga naan koccu lan moo tax ngay publier vidéo Adamo loolu xawma ko loolu man la sama yoon c'est que man lijjanti wu ma ko ndax man déranger wu ma man sama audio fu mu dem man maa ko wax lu ma bëgg a wax maa ko wax man ragalu ma moo tax man déranger wu ma bu ma neexoon ne ko sama audio lan moo tax ngay jël sama audio di ko dugal mais man damaa ragalul loolu loolu moo tax. ndax mën naa jàpp ne ci taalibi Serigne Babacar si bi nga doon waa dootoo taf benn jigéen di saaga ndey ndax mën naa jàppale déggoo li ma la wax saaga ndey moom mënuma ko garantir kenn en tout cas wàññi naa saaga yi lenn laa xam ne bàyyi naa ko mooy jigéen ñi nga xam ne dañ naan def taatu nen ma ñëw di leen wax ne leen tax ngeen def ak lii léegi ku yaa xam ku fóonante yaa xam ku laalante yaa xam mais nañ ci bàyyi xel ne du nekkul lu baax point mais saaga ndey moom saa yu ma yëngatoo rek à tout moment mën naa katt ndey dëggal sa ndey kooku moom dama la koy wax yàgg nga Europe. waaw. am nga fa diplôme. maanaam jàng ba am diplôme Europe wala amoo diplôme. am naa diplôme jàng naa def naa formation kooku. ban diplôme nga am. Ah, jàng naa école dem naa ba BFEM. fan nga demee BFEM. Allemagne. maanaam BFEMu allemand nga am. waaw. BFEMu allemand nu mu tudd. Fach Abitur. ok uh, rek maanaam sa lijaas bi gën a mag BFEM la. d'accord euh, ndax bi nga bàyyee Sénégal tabax nga fa dara wala am nga fa dara wala amoo fa man ba ma bàyyee Sénégal ndax man am naa Sénégal dara wala aw ma fa dara. Hmm. Ah, Sénégal maa ngi ci ay projet maa ngi ci samay affaire bopp mais ci li ma nekk ci Sénégal ak la may def moom du dama la koy wax fii ci nit ñi loolu moom man la engagé. mais lu tax bi ma la laajee diplôme bi nga am tamu leer la waxoo ma man la engagé nga wax ma ko. kay am naa diplôme loolu dañ luy fu école la lu mën a tontu dañ ciy tontu lu mënta tontu du ci wax. man doon laay jàpp ne tontu mooy dëgg loo mënta tontu parce que da ngaa amul tontu. bu la neexee nga wax ko jàppal la neex man lu ma bëgg a tontu laay tontu lu ma bëgg a tontu du ma ko tontu. ndax dama laa laaj sa jàng. muy sa vie privée. waxoo ma suma vie privée la danga ma ne am na BFM te wax ni mu tudd. ma laaj la yan projet nga am Sénégal nga ne sa affaire la. ça veut dire que amoo projet waaw parce que sénégalais baaxul sénégalais dafa soxor lu y yëg ni nit kaa lu mu yëg ne def nga ko pare mu yàqal la xam naa sénégalais loolu mën la en engagé du ma ko ci live point du gàttal feneen d'accord léegi allo allo waaw sëñ bi waaw maa lay dégg lu xew tojal sa cott ndey dama laa xam katal sa ndey waay nga wooma naan ma ay doo dal ubbil sa lëfal ndey fële yàlla di jënd sama numéro wooma dama laa soxla xaral sa jobu nday bisimilah sëñ bi. non sa xarit la daf lay wax pour nga gën a dal rek. non non. ok demal. ok beneen bi mooy. Hmm. yow Adama. waaw. ndax di ngay toog namm Sénégal gi nga dëkk xam ko miin ko yaroo fa màggee fa ndax di nga koy namm. ndax dinaa toog Sénégal gi ba dëkk miin ko màggee fa di ma koy namm. waaw ndax di namm Sénégal. Sénégal dinaa koy namm Sénégal si ñun la bokk Sénégal suñu réew la ñun luñ mën a am fii Sénégal ñu ko gënal lépp loo xam ne nii jàpp nañ ko ah di ko def fii ci réew mi am ko ci réew mi rek am ko Sénégal moo ñu ko gënal. léegi ndax gis bopp delluwaat Sénégal wala. mën na Sénégal incha allah du ma la wax kañ nag mais man dinaa delluwaat Sénégal bu soobee yàlla. laajaguma kañ dama doon laajte ndax gis nga ne di nga dellu Sénégal. dinaa dem Sénégal incha allah. ok léegi waaw. jamono Macky Sall. waaw. homme d'affaires yi daan waxtaan ak yow. di la yónnee audio te yow dégg naa ne dooy sànne audio. waaw lu la waay yónnee buñ la na tàpp tàppoon aadamoo jugal nga teg ko ci taabal. ku lu ci bëgg a yem ndax di nga doxanday audio yi wan ko ne man may boss de Negri ba mu xam ne doo moroomi baayam. parce que jàmbaar premièrement amul képp ku homme d'affaires bu ànd ak Macky Sall man dama envoyé audio di ma wax n'importe qui. man ah. aw ma samay nit laa am man laa la wax aw ma kenn kuy nekk ci Macky Sall di ma envoyé audio man wax ci lu jëm ci ay nguur ak ay politique yooyu amul. Euh, la Adama. man la Adama waaw. Farba Ngom musu la yónnee audio. déedéet. musu woo appel. déedéet. lii moo doon waxtaan bi Adama kontaan naa. bég naa ci maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf. ci uyu si bi nga ma uyu si. kontaan yal na la yàlla defal jàmm. jërëjëf. defal la sutura. jërëjëf. sëriñ Babacar si bi nga bëgg a woy yàlla neexal sa baat may la xam-xam boo ko wéyalee. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jabar yàlla boole leen ci jàmm te may leen njaboot. jërëjëf jërëjëf te yàlla indiwaat ko ci jàmm. jërëjëf loo ko njaboot. kontaan naa yàlla na la yàlla fay yow may na gudd fan ci invitation bi. amiin waxtaan bi neexoon na te am na solo lool. amiin jërëjëf Cheikh bi. jaajëf waay Adama. kontaan naa. Eh, kii Heaven Liminess jëlal ma ay nit ñu wànne seen réaction ci live bi fi amoon léegi jëlal ma dix personnes su jeexee ma bàyyi jëlal ma par benn ñu wax seen réaction ku fi def deux trois minutes wàcceeku ko Heaven Liminess jëlal ma nit ñi benn par benn ku fi def trois minutes wàccee ko même bu lu muy wax bu amee solo sa na wàcc keneen ñëw. dimbalee ma loolu Heaven Limanes Heaven su kii paree indil ma jëf jël trois minutes bu ko bu ko fi kenn placé na nga def soxna si soxna si na nga def wàccee naa kii indil ma keneen mu gaaw bu kenn passé trois minutes su kii paree indil ma jëf jël s'il te plaît heaven oh. da ngeen di wàccee seen demande ngeen defaat ko parce que ñu ngi jël mënuñoo jël mu ngi jël mais mënta jël da ngeen di gé retirer demande yëpp defaat mais sinon kuñ ci jël du ñëw Heaven mu ngi jël mais kenn mënul ñëw.